denday éleveur si wàllub élevage jàpp leen moo xam li ngeen bëgg mu jëli ko indi ko rawat na nag màggal Touba gii nu jëm ngir ngeen mën teeral seen gan si bernde yu mucc ayib leen taamu fenn fudul denday éleveur ak gérant bi di Serigne Saliou Mbacké adresse bi mi ngi si Touba mosquée gaaw leen gaaw mbokk yi lépp lu ngeen itiwooti si poulet de chair élevage boole kook hygiène ay poulet de chair yi ngeen xamemoon ak si leen waaye tamit am nañu ay poulet pondeuse ay poulet bleu Hollande ay poulet du pays ganaar dàq jàpp neex loolu saf loolu macha allah bu ngeen bëggatee ay copine ay naat coker pigeon pitax lapin ma ni gaaw leen gaaw taamu leen dendey éleveur lu ngeen si bëgg si quantité waaye nag qualité ba ñëpp ko taamu set nanu sakkan na neex tamit kenn waxaalewu ko dendey éleveur daal moo fas yéene ànd ak yéen si màggal Tuuba gi livré leen lépp lu ngeen itteewoo si wàllu élevage gaaw leen gaaw ngeen woote 77 638 61 09 wala 77 103 14 14 dendey éleveur di leen gunge si màggal Tuuba gi ngir seeni bernde gën a neex gën a sakkan